jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte àndaat ak yéen ci jotaay bi nga xam ne taaru Sénégal la nu ko tuddee taaru Sénégal nag nekk jotaay boo xam ne rédaction bu 24actu moo leen koy proposé ñu ci di ci waxtaan ci lépp loo xam ne nag soxal na askan bi ak comme ni ñu ko waxee rek euh, Sénégal yàgg naa taaru di jégg baax nag euh, gëj a gis gi ngeen ñu gëj a gis ci taaru Sénégal waaye désormais incha allah di leen wax ni taaru Sénégal ñëwaat na waaye tamit dina am yeneen yu bees yoo xam ne incha allah rabbi di ngeen ko gis ci jotaay bi nga xam ne euh, taaru Sénégal lañu ko tuddee duma ci wet benn yoon dama ci ànd ak euh, rédaction bi ku ci mel ni soxna Assouci la ak euh, Mame Fatou Kébé tey nag Mame Fatou moomu gën a jege moo fi nekk sax ma bàyyi ko mu nuyoo ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci vingt 24actu.com Mame Fatou salaamaaleykum sa tagal baax na. <laughs> dellusiwaat suñu émission yi nga xam ne moo leen tuddee taaru Sénégal taaru Sénégal ñu koy ànd wax naa ko léegi ci bi may tàmbali taaru Sénégal dina ñëw incha allah am na tamit yeneen surprise yoo xam ne dencal nañ nga xam ne ñooy topp bile jotaay nga xam ne lépp loo xam ne day taaral Sénégal lépp loo xam ne cosaan la danañu ko andi xëy na duñ ci wax duñ ci sori mm-hmm. waaye numéro ñëw incha allah dinañ ci ànd ak ci leneen incha ah. waaw incha allah taaru Sénégal ay surprise yu bari bari yoo xam ne mi ngi leen ci xaar incha allah Mhm. muy thème yu am am solo yoo xam si ne xam naa bu ngeen koy topp par benn benn la leen koy indil muy thème yu am solo mhm. euh, te ñu ci ànd ak ñi xam si ne ñoom la ñu ànd rek saa su ne jërëjëf Kébé Ngor Ndiouga Ali da du tey nag euh, ñu waxtaane benn thème boo xam ne euh, soxal na askan bi tey ñu fas yéene waxtaane soxal soxal nag yaakaar naa ni bu ñu ko waxee euh, Sénégal comme ni ñu ko waxee rek baax na ñu taaral suñu réew mi bu ñu nee Sénégal émergent ak leneen ak leneen bokk na ci ñu gën a taaral tamit jikko yi parce que tamit. jikko bu baaxul yaakaar naa dëkk bu mën di doon euh, dara du jag Mame Fatou tey boo ñu doon faram-fàcceel soxor euh, ci ni nga ko déggee rek lan nga ñuy wax. solo mm-hmm. eh, benn bi ñu leen ci tànn rek buñu ci faram-fàccee na ñi mën cee jariñ lu bari bari muy soxal mm-hmm. eh, soxal nag nekk loo xam si ne nag dafa am ci nit ñi nag moom mm-hmm. mu nekk boo xam si ne nag bu doy waar la ci nit kooku am tamit war koo bu fekkee ne lu mën la nga négocier mu a loo xam si ne daal baaxut ci doomu aadama te eh, dañuy wax ne dafay indi sax loraange ndax ni muy indi loraange doo fekk nit ku soxal la société di avancé mukk ndax dangay gis ñoo xam si ne danga yàlla bind nit te yamalewut nga gis nit ko am dara nga di ko soxaree yow fa nga nekk saa su ne mm-hmm. yow ma mm-hmm. yàlla mm-hmm. yow may soxor soxor ne ci yow doo avancé mu sa xol di jeex kon soxor day delloo nit ginnaaw waaw soxor day delloo nit ginnaaw ndax olof sax damay dégg rafetal xol yi kon ndax olof damay eh, ngay soxore doomu aadama ndax yow nga ne yow war ngaa am nangam. te ko am nga ne li tax mu am. loolu baaxul ci doomu aadama. kon soxor ak ki ñaan xanaa ay ay ay cheikh ay mbokk lañu. moom benn la yaakaar naa xam naa ne sorewuñ ndax hmm. hmm. hmm. euh, dañ koy wax nit nañ naan soxal naan iñaan la rek ndax euh, nit moom euh, soxal moom bu xasee ma ne ci rek nekk ci ne ci dañ naan lu koy dindi man yomb waaye nit di gis tamit koo xam si ne da koy def ba pare di ko bëgg a nëbb waaye nit ko tamit jikko boo xam ne jikko jikko neexut a nëbb parce que liñ naan jikko borom pax te lu ne nga mën a nëbb ba mu des jikko mais ñu ba xuus bu baax ci mbir yi avant avant ñuy dugg ci euh, li koy waral nga jox ñu benn exemple pan mën nañu lii nga xam ne carrément ñiy seetaan dinañu xam ne lii nit ku soxor dëgg-dëgg mooy lii par exemple. waaw El Hadj Ousseynou ndax gis nit nit nit soxore hmm. euh, ki ne hmm. euh, loolu nañu nangu yàlla la yàllaay dogal yàlla moo yor lépp yàlla mooy séddale. yàllaay dogal waaye léegi Sénégal da gis ne nit ñi nangootuñ ne yàllaay dogal. Hmm. ndax nit ki ab jaam mën naa ko mel ne comme tey jii cër euh, wërsëg yàllaa ko bind mhm. da ngay gis ko am dara mhm. yow xam se ne yow la suñu borom mhm. euh, xam se ne même bari la nga war a bari la woo nga gis tamit nit ko xam se ne tamit la tax te dafay soxare nga xam se ne moo ko ëppale mais soxor wóorul de la <laughs> yow defe nga ne yow mën ngaa euh, sa yow la ngay am na yem ci yow moo tax ñu naan nit ki doon dimbale doomu aadama kon kenn du am dara ndax da ngay gis nit ñoo xam se ne dañuy am waaye duñ dimbali mm-hmm. kenn mm-hmm. ndax seenu loolu lépp ci xeetu soxor la ciy soxor ciy soxor àddina man ma war a am waaye kenn warut a am. Mm. lii man maa koy yelloo waaye kenn waru koo am. Mm-hmm. ku ko am nga ne tey nga dee da nga ciy gis sax ñoo xam ne soxor sax da leen di jaral sax. Mm-hmm. ñu seen morom ba euh, ci ba mu doy waar daal. maanaam def lay bagage. sànq ko wa. Hmm? sànq sànq da ci am ndax da ngay gis nit koo xam si ne soxoray waral tey muy sànq doomu aadama. Mm-hmm. Euh, di ngay fekk nit koo xam si ne dafay am. Ah, te nañ laa yóbbu sëriñ sax da ko yóbbu cib sëriñ mooy sànq gi yóbbu ko cib sëriñ. ci dàqale koog sa boom alalam jooje da nit ñi di ca wallaay te temps Sénégal dañ naan Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te nit def la loo xam ne euh, vraiment waxuma la bopp xar na ko ñaar waaye xaaj na ko ci ba xaajaat ko. xaajaat xaaj xaaj xaajaat ngay mhm. euh, la kenn mënu koo def ñaar. Mhm. Euh, waaye la kii mhm. ko mu xar <laughs> ñu ciy gërëm Gana Messere ah. Mm-hmm. Mm-hmm. nii mm-hmm. ko dégg tamit. voilà xam mën na mën na lu ne xam naa xam naa ñu xuus waa lan nga jàpp ne moom moo koy waral ci réew mi. ah mu ah, jaaxal na ma lool ndax li tax mu jaaxal ma. ah ñun yi euh, euh, tax mu yaatu ci nit ñi. da gis nit koo xam si ne ni ma la waxee man mbaa xam nga ne dinga nga di man benn mbir nit soxoree la ko. bu baax jékki-jékki mere la te doo ko def dara. Ah, mere la. <laughs> loolu lépp am na ci réew mi di. seex naa mën a filme rek. nga nga nga ko ko mere ko te te du la def dara. te fekk nag yow moom yi mere amaan sax yaa borom xol ba rafet nga dara nit ko ci yow. wallaahi nga naan man kii lan laa ko def. ba mhm. mere ma lan laa mhm. mhm. ko dara. ba na ko tooñ mooy lan soxar ga ne ca moom. soxar ga. saa su ne suñu borom tax ko doon bu ko doon tàllal xam naa ne xaj na xaj fii ba fii ba suba mën nañ cee waxtaan waaye. ñu ko El Hadj nekk ñaari cër ci doomu aadama ndax dangay gis nit hmm. euh, hmm. waaw waaw lool loolu léeg cem parce que euh, liñ naan xolub ki ñaan noppalul borom. léeg-léeg nit di euh, gis nit di ko soxare ko iñaane te kooka yow la nga koy def chaque jour day gën a jëm kanam sa xol di jeex ngay maigrir mel ni espagnol buñ xoo soog leneen. Hmm. xam nga yëpp daanaka nit nit nit nit maam Fatou nit euh, Sénégal euh, nañu nañu noppal sunu bopp noppal suñu suñu suñu xel. parce que nit ku nekk bu fekkee ne li mu nekk nga yéene ko ko nit ku nekk li ku nekk am na lu ko yàlla may te mayu ko Moussa Ka mi am na lu yàlla def ci moom te def ko ci Cheikhouna Cheikhouna am na lu yàlla def ci moom te def ko ci yow donc loolu mën je crois que ni nit ki li koy gën a yombal lool rek mooy mu nangul ko ko mais Sénégal duñu nangu Sénégal dëkk la boo xam ne dañuy topp nit ki ba mu gaañu Sénégal fekk gaañu wóor wax ci yow baax daanaka am na ci ñoo xam ne fekk gaañu woo fekk yaa ngi dund bëri na ci ñoo xam ne ennemi lañ lay def dañ lay jàppeem noonu ba nga dem ba nga dem nag ñu naan ah pourtant moom ko baax la woon pourtant moom nangam ak nangam alors yooyu ay jikko la yoo xam ne dañ ko war a setal te bu fekkee ne Sénégal dañ ne quatre-vingt-quinze pour cent ay musulmans lañu ay jullit lañu am na ci loo xam ne man jàpp naa ne jullit imam bu la neex mën nga koo laaj jaaka jàpp naa ne soxor moom bokkut ci melow jullit. ndax li nga wax sànq rek da ciy am sànq ndax da ciy am hmm. ndax da gis nit saa ne hmm. nga xam ne yàllaa bi ñu tollooliwu hmm. yow am nga lii sa morom am na lii sa morom am na lii waaye gisoo la la yàlla le dangaa jël nit ki teg ko bët lan nga ko tege bët mooy lan mooy lan nga ko soxare lee mu am ne waru koo am est-ce yow maanaam bu xooloon ci yow ngeen di noonu mu xool ci yow la nga am mu bañe la tey jii loolu loolu du gën a law di gën a yaatu. Mm-hmm. waaye da si ne yow soo xaree nit koy jaral mm-hmm. lu nekk ci li ma la wax sànq nii rek. Mm-hmm. Euh, di nga gisee nit mu demee ci yow noo xam ne si ne. soxaram bu ko bëggee nëbbu sax. du ko mën a nëbbu. ndax maanaam lam lay wan la. ndax bu ngeen yàggee tuuti nit ko nekk mu soxare la. tey jii bu la deeree bu xol bay bañ. tuuti mu lay wan kanam bu kii noonu doo ko doo ko doo a. xam dagg na baaye waaye lu mën di xew moom yonent bi moom nee na woon ak ku soxor mu doonee ab sàng mu te soxor boobu maam Fatou dem na ba egg ci entreprise dem ba egg ci kër yi dem ba egg ci jigéen ñi sëy waaw da ngay sëy sëy wujju peccal boobu xeet mm-hmm. soxore mi ngoog Olof Njaay sax dégg ñoo xam ne tey buñ la waxee dañ naan la wujju mm-hmm. peccal boobu moo gën a aay wujj mm-hmm. te damay defe ne man waaw <laughs> te damay te damay gis nekkee kër googu comme que yàllaa leen boole ci kër gi yow bokku leen ko waaw foofu sax euh, soxar donc li ma la wax léegi ci mm. jikko bi soxar a fa nekk mm. waaye bi dara doo xam si ne maanaam wujje war a mm. da ngay gis soxar bi dafa topp nit ñi ba ci biir kër yi ba ci wujje gi ndax koo xam si ne yow bokku leen borom kër du du lal nga lal maanaam la ngay def bokku leen ci benn ses foofu soxar nga fa mën a nekk waaye di te da ngay gis koo xam ne tey lu am morom ji mu teg ko bët ne war naa ko mën a am mm. te bu wërsëg tolluwul jaral dalay jaral nga di ko yàq mm. di ko yàq mooy lan di mm. seen ñoo naan ndeysaan mais Sénégal dafa mel ni nit ñi dañoo dërkiis léegi ustaas yi wax nañu déggeen si maire wax na ba dem ku ne wax na mais ak lu mën a xew terewul ñi nga xam ne ñooy seen ñiy def seen rôle terewul lañu war a wax dinañ ko wax ku def noppal sa bopp ku defut sonal sa bopp xam nga baax da noppale dégg na waykat bi naan ku baax soo nut ku bëgg a baax soo ki baaxut ba pare buggut ki baax kooko sonn xam naa ne loolu yaakaar na thème bi bu ñu ko toppoon fii ba suba mën naa gën a yaatu te xam naa incha allahu rabbi dinañ ko dinañ ko toj invité ci ñeneen ànd ceeg euh, Khady Thiam dama koy annoncé incha allahu rabbi dina ñëw ci bile jotaay moom itamit euh, yàgg ñoo gunge ci xeetu jotaay yu mel nii ngir toj euh, xeetu thème yu mel nii incha allahu rabbi taaru Sénégal dinañ ko jël ànd ceeg yéen waaye xam naa ne ngir jeexal rek xam naa ne waxtu bi li ci des bariwul lan la ñu war a mën a def ngir moytu ko wala lan lañ war a mën a def ngir rafetal nekkin bi nga xam ne àdduna dara dafa éphémère daal dafa gàtt daal. waaw jamono te chaque jour yàlla won na boppam nag chaque jour yàlla won na loo xam ne ah, eh, boo jëlee beneen yoon war nga caa mën a dëpp ndax ànd nga ak nit yàlla yóbbu ko. Ah, eh, bu dee bu dee bu dee ku am xaalis eh, ku ne milliardaire bu nekk dem na fi. Hmm. donc bu dee leneen pouvoir lépp looy xëcc ci àdduna rek doomu aadama bi am na ko dem kon donc yow mi fi des nga xam ne yow defaloo yàlla dara lu tax mu bàyyi la fi yaakaar naa ne je crois bien que ni war nañu mën a xoolaat bu baax xoolaat ne kii nii rafetal la lépp te xam ne na rafet rek. ndax jamono li ma la wax léegi xoolee fi toll nii ci baax gi defe naa moo gën ci bon gi mm-hmm. te boo dee xool maanaam xeeti soxar mm-hmm. yooyu ak yeneen i yoo xam si ne daal mm-hmm. doy na waar dafa fës ci jamono ji toll lool ñu war a toll nag koo xam si ne war nañoo taxawaat nag def jàmbar xoolaat ko bu baax a baax a baax c'est très important fi ñu toll nii. Mhm. Euh, li fi jar soxorante moo ki te doomu aadama bindoo doomu aadama mayoo ko ba mën koo soxore doomu aadama bu xamoon na tey jii te ko yàlla mayee sax fa ko yàlla mayee doo ko jaam fekkewu ak ko mhm. nit ki la ko yàlla jox xam mhm. ko ko joxe fekkewoo moo tax boo ko bëggee soxore boo moytuwul da ngay indi sa bopp ay gàllankoor sonn mu indi la xol bu jeex mm-hmm. ak wow bu mm-hmm. mujj nga di ko misère ba dee te doo ca mën dara moo ah, <laughs> eh, tax dee xool mm-hmm. yaatal xol yi bëggante lu waaye am nga yéene ko sa moom def naa dinañu gën a indi ak avancé aha dinañu gën a indi ñu bu nekk ñoom ñoom ñoom loolu la ñu wutee ak euh, Sénégal loolu la ñu wutee ak tubaab yi parce que souvent dañoo ne Sénégal dëkku teraanga la loolu dëgg la Sénégal am na teraanga am na nit ñuy def teraanga. waaye tamit xol tamit mooy lépp. parce que bëri na ci dëkk yoo xam ne boo gisee li tax ñu raw ñu mooy ku ci nekk euh, milieu bi nga nekk wala ku ci nekk domaine bi nga nekk moom ngay jéem a fexe mu dox keneen ka la ko yàlla may ak la ko kii nga bàyyi ko moom dëkk yu bëri am na ci ñoo xam ne noonu la ñuy doxee mais nag Sénégal dañ lay teg bët. boo boo boo boo tàmbalee am nangam ñu teg la bët di la xool boo tàmbalee mën a cadre bu baax ñu lay xool boo tàmbalee mën a mën a mën a def journal bu neex ñu ñu teg la bët ne luy lan moo tax te loolu loolu noppal noppalul kenn yàlla la am na ci loo xam ne yàlla la donc xam naa waxtu bi li ci des bariwul bu ñu ko toppee mën nañ ko gën a yaatal bu baax a baax te comme li olof yi wax rek lu jiwoo jeexul jógu fa bi la jotaay jàpp leen ne jotaay la boo xam ne lépp loo xam ne euh, bu ñu ko waxtaanee mu taaral sunu réew mi dinañ ko waxtaanee nekkuñu fi ay donneur de leçon waaye dafa nekk loo xam ne ku ci nekk euh, fa di seetaan ku ci nekk ak fi nga mën di nekk tamit xam nga ne lii ñuy wax réalité la boo xam ne am na ci réew mi nekkul loo xam ne ñun dañuy ñëw di ko former wala dañuy ñëw naan la tam nangam lépp luñ ci wax rek ku ci nekk am na ci ñoo xam ne ñi ngi tëdd seen kër wala am na ci ñoo xam ne ñi ngi toog seen kër wala am na ci ñoo xam ne ñi ngi toog seen oto te mën nañ cey wax fuuf la ëpp lii ñu ciy wax parce que thème la boo xam ne thème d'actualité thème la boo xam ne aussi euh, kenn mënu ko wedd ci réewum Sénégal donc xam naa ne asu moom itam dinañu gunge ci jotaay bi moom namm nañ euh, fi muy génn euh, incha allah rabi mam Fatou ma bàyyi la nga tàggoo mais tey moom xam naa ne namuñu waa Inde ni nga def létt ba na nga ko xëccee ba kanam Cheikh naa lay xool rek xam naa tey namuñu Inde yi moom ma bàyyi la nga tàggoo ak ñii topp taaru Sénégal. waa jërëjëf El Hadj Cissé ñu comme ni ko waxee woon thème bi ñu indi tey muy thème mu soxal mm. ku ne man ci wax mu nekk thème boo xam se yaatu na ku ne xam nga ci dara ndax ku ci tàtt tàllaloon micro mën nga cee wax ndax du da nga ci gis ñoo xam ne nañ ci lu ne loo se ne mm. buñ la ko waxoon sax nga daal seen seen mm. euh, sa nawle euh, mu nekk loo xam se ne daal xam naa ne war nañ cee faram-fàcce lu yaatu yaatu comme ça ni ko El Hadj waxee sànq dinañ ci dellusiwaat gën koo yaatal bu mu gën a yaatu ndax thème bu am solo la ñu leen di wax wax ne nag ñoo ngi woon ci eh, li nga xam se ne moo di taaru Sénégal mm-hmm. ànd ci ki nga xam ci caméra bi Sarka <laughs> xam naa mm-hmm. eh, jëf eh, jërëjëf koy sant baax Kébé Ndiouga Ali dëggeen koor du Maam moom la ñuy àndal ci jotaay bi nga xam ne moom la ñu tuddee taaru Sénégal waaye tamit soxna Astou foo man di nekk suñu xel mi ngi ci yow di la wax ne itam bi la jotaay ñu ngi la ciy nam bu baax te di la ci xaar incha allah rabbi très dinañ ci àndak moom euh, tey euh, ponk bi ñu tànnoon di ko waxtaane muy soxor yaakaar naa ni euh, jot nañ ci wax lenn li bëri na lu bëri loo xam ne itam dinañu ko détaillé comme ni ma ko waxee rek dinañu ko waxtaane ànd ceeg ñeneen ñoo xam ne itam ay invité yoo xam ne yu am solo la waaye itam bi la jotaay dinañu ko gën a taaral gën ko yaatal loole lépp rek ñu jëmale ko ci jotaay bi nga xam ne taaru Sénégal la ñu ko tuddee sant bu baax ak gërëm Cheikhouna Ndiaye mi nekkoon ci caméra bi moom mi ne moo ci doon jàpp balxut jinne caméraman yi sant bu baax Moussa Ka mi nekkoon ci wetam moom itam ñi ngi koy bu baax di ko gërëm ci liggéey bu solo bi ñuy def sant bu baax baax itam xadiñaa mi nga xam ne mooy monté jotaay bi ba ngeen mën koo seetaan mu rafet euh, ñi ngi ko ciy sant baax di ko gërëm sant Awa Ndiaye jigéenu jàmbaar di leen jox euh, di daje incha ci beneen jotaay taaru Sénégal Sénégal yàgg naa taaru jërë ngeen jëf